ASTAP di association pour la sauvegarde et la sécurité des transitaires et des acteurs portuaires amaloon na am ndaje ci àllarba gi ngir waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkoonteel loole sax tax ba ñu dakkal seenub liggéey. ñu am bégte daje ak yéen tey ngir euh, càmbar li nga xam ne moo xew ci poor bi depuis dix jours mooy collectif bi taxawal seen liggéey li ko waral nag mooy ay mbir yoo xam ne jafe-jafe la yoo xam ne mëneesu ci liggéey ci loolu conteneur vide yi nga xam ne euh, ligne maritime yi maanaam compagnie maritime yi ñoo ko war a jël delloowaat ko fa mu joge woon vide yooyu ñoo mënul dellu loolu nag li muy indi mooy port bi day xat Dubaï terminalam bi day gaaw a fees waaye yemuñu ci loolu dañ ko jël sax nag bàyyee ko transporteur yi nga xam ne da koy teg sa kaw camion mu def fa ay fan yow doo mën a liggéey te duñ la fay dara nag. moom Omar Cissé directeur de l' association des commerçants industriels daal dinay xamle itam ne bu nguuru Sénégal gi deful dara ñoom nag dinañ tëj seen i magasin ba daal di gis lu leer. waaw léegi nag dañuy wax ak euh, Sénégal di leen wax ne gis ngeen njëg yu seer yi ci marché bi. dara warul ko dul port bi ndax lii ñu leen wax ci ay taxes te li ñu leen junjal ci ay taxes lu néew la par rapport ak li am dëgg dëgg dëgg ah bu fekkee sottiwul ci fii ñu toll nii danañ ci teg beneen jéego mooy ñun commerçant yi danañ wàcc suñuy rideau danañ tëj suñuy magasin loolu incha allah ci fan yi ñëw dañ leen woo wax leen ko. ndaje bi li ko taxoon a jóg mooy waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni transporteur yi ñu ngi koy jànkonteel foofu ca poor bu ndakaaru ba tax na ñu ngi woo nguuru Sénégal ngir mu jug si ci nu mu gën a gaawee.